waa Sénégal ma def vidéo bu ndaw rek ngi pour samay mbokk samay am di jàmm ak ñi ma bëgg te yàlla tax ñu dalal seen xel di leen wax ni waa ji ñu wax ni dañ koo garder à vue Kër Massar ci coowal supposé milliard bu ma dénkoon nit di leen xamal ni maa ngi nii sama kër ak sama biir njaboot nekk ci jàmm waaye leen xamal ni sos yu mel nii dugg leen sos nañ fi ne dama doon tukki ñu nangu sama passeport fekk boobu maa ngi ak sama njaboot weer yu woo ma wax ma ko sos nañ fi ni dama lekk budget ministère sport ci ñetti weer tey ñu sos ni dafa am ku ma doon dénk un milliard ma leen di xamal ni sos yooyu yëpp nag am na yeneen yuy ñëw ngeen préparé wu si xam ni am na yeneen yuy ñëw waaye ak lu mën a xew na ngeen xam ni ñun ay gor lañ ay gor juddu fi ñu war a judd te duñ daw lu ñëw dinañ ko dékku te di xamal ñëpp ni man fonctionnaire la administrateur civil la de classe exceptionnelle liggéey ngir réew mi xeex ngir réew mi donc amul dara wala lenn loo xamante ni mën na ma détourner ci taxawal Sénégal maa ngi leen